and Investment Limited yeken osotale lamen kerewa 20 by 20 jiobe je beje. je niŋ sunkaro buuñana la horomo kaŋ i be 200000 dollars cash i ka fo ye mortgage ka domoniŋ domoniŋ jo ka taa fo kari 250000 dollars kairosu properties and investment limited Ibal be al contenta kairosu properties link us and we make you a home builder on this platform, we will be talking about everything that happens to the youth, whether the negative or the positive side. As it said, a society full with uh, negative uh, affected youths negatively is a failed society and a society full with great youths is a great nation so on our today's platform we will be talking about flood uh, how it affects the youths in the gambia ba yi nag may nuyu suñ seetaankat yi ku nekk sa tuur ak sa santa ak foo mun a toog di leen uh, welcome si suñ beneen plateforme au programme uh, Youth Bantaba Youth Bantaba bi nag fii la ñoo waxee waxtaanee lu nekk lu dem si si youth yi comme ni ngeen ko xamee rek society bi nga xam am a great youth it's a great nation and society bi nga xam am uh, affected youth or failed youth it's already a failed society uh, be tey nag may suma mbokki poli assalamu alaikum musidɓe am uh, meɗe werna on tolna on ka nder suudu men ga e nde awlitande men inneteɗo youth bantaba kon ɗoni youth bantaba kaka youth bantaba platform donam. Me mi yewtata kala e programme ko yaari e youth ɓen eko watta ɓe kon don't No? tey dañoo dugga waxtaana ñuy sumbookaay di victims ñu affected by the flood gis neen kër bi nu mel nag am na ñoo xam ne biir Gambia su xiinee dañoo kontaan yaakamti mu taw waaye am na tamit ba tey ñoo xam ne su xiinee ñoom du mbugg a gis mu xiin sax ngir xam ne seen location nu mel ak njaboot bu mu am kër taw bi nag yaaxa fii lu bare bare bare bare comme noo leen ko gisee rek ñun nag Gambian Talents TV duñ toog suñ office di wax ne kii mu ne kale mu ne dañoo dox dem ba place bi wol leen xew ak num xewee Aïssatou Diallo Gambian Talents TV. tur man maa ngi tudd Awa Senghor. fii nga dëkk. fii laa dëkk waa. ñaata at nga fi. am naa fi seven years. mos nga expérience lu mel ni. ah mosuma expérience waaye bi ma duggee fii si laa commencé di expérience lii parce que man fi ma nekkoon first time mosuma float waaye bi ma duggasee fii si laa commencé di float nii. léegi def nga any effort pour change environment since every year comme noo ko waxee daf leen dee daal mos ngaa def effort pour change environment. waaw dama dee def effort pour change environment waaye da ngaa gis ne man bi bi ma dugg fii nii bala ma doon dugg fii sax dama ut néeg ba soona aw ma néeg soo dañ ma ne fii am na néeg ma ñëw ma ne xaaral ma ñëw toogaangu mi fii maay utaale néeg xoola depuis seven years maa ngi ut néeg ba léegi mënu am néeg foo laajte néeg dañ la dee wax ay 4000 ay 6000. loolu soo ko jëlee fekk ko si néeg looy lekk sa njaboot gi loolu moo ma fi téye nii ba léegi de loolu moom ma fi téye ba léegi. noonu laa jógee ma oo suma doom yi ma ne ko léegi jóg leen ngeen paak xale yëpp ñëw eeg si kaw lal bi parce que man su ma lalee fii xale yëpp duñ dee nangoo tëdda si biir fii lañ dee ñëw tëdda maa leen di uppa soo dama jog rek ikkati ñoom ñëpp ma aj leen si kaw lal bi nii la ndox bi commencé di ñëw ba si fajar gi nii laa leen ne ñu génne leen yóbbu leen si beneen kër bi. man ban message nga amal government bi national disaster management ak ñu sum viewers yi ah disaster moom wax dëgg neex yàlla amuñ seen fay yàlla leen yàlla fay try nañ torop parce que ñun du every time lañ ñu dee dimbale waaye am na at boo xam ne musoon nañ ñoo dimbale fii nii waaye ba tey maa ngi leen di ñaan dimbal rek suñ ñu mënee dimbale ñu jàppale ñu rek yàlla tax di wax nguur gi tamit ñu jàppale ñu rek parce que soona nañ trop nyaka de ku way mota ñu ñew de kafini xam nga kenn du gis neeg bu baax nga ñew de kafini so gisee nit di de kafi façon kër yi ni ñaaka neeg rek loolu moo ñoo indi moo ñu indi fii nii waaye su dutoon di loolu kono duñ fi dikka sax parce que ñun ñu fi dikkee neexuñu at bu nekk di nga cëñ tape weer bu nekk di nga cëñ peinture bu ngaa gis nii gis suñ peinture yëpp man su ma peinturé balaa julli bi laa peinturoo nii a yëpp rot na soo peinturé yëpp rot loo fi dugal lu am 30 minutes mu yaaxu parce que ndox bi su wowee sax si suuf la day jógee daf day guus soo lalee tappe ñaari fan ñitta nga gis mu xar foog nga génnee ko soo amee nga jëndaat tappe kan moo leen dee peinturaal borom kër bi la ndax yéen yéen ko dee def from yéen ma dugga fii léegi man maa dee peinturaal suma boppa fii lu ma fee liggéey lu fi yaaxu maa koy defar fii lu nekk man maa koy liggéeyal suma boppa bu li xewee seen borom kër bi set si na leen def na any effort pour change. man de ma dugas bi ma dugas dugasee fii be léegi borom kër bi mosuma koo teg boot fii nii sikkiñ day fay lu waas rek la mosuñ koo mosuma koo teg boot ñun suñ fulootee nii sax duñ ko gis duñ gis kenn si waa kiiram yi sax ñun rek ñun ñooy nekka fii di nga ca ndox ba su woowee ñu fobeere suñ néegi ñu jonkonaat ak suñ njaboot gi saa yuñ fulootee ñun rek ñoo fiy nekka ak xanaa suñu am di jàmm yi dëkkandoor yi day ñëw ni dimbali ñu luñ am may ñu waaye su paasee loolu borom kër si boppam ñun duñ ko dee gis man musuma koo gis fii nii. <coughs> madame Jatta fii nga dëkk. waaw ñaata at nga fi am. mbaa loolu xelti na si xale yooyu I think youths yooyu noonu they can be something great in the future eh, nu ñoo def noonu is it health wise to their is it wise to their health to me I totally disagree façon programme problems yu mel nii oo lifin situation yu mel nii daf dee cause xale bi pour mu am stress and trauma ba tey am na ñoo xam ne yëguñ because at that early age ñooñu xamaanguñ luy stress sax ñu ngi luy dem 5 6 doom war a eew everyday génnee dépense génnee ñooñu seen lunch génnee ñooñu seen school fees ah, ba tey ah, lu mel ni di la daal amuloo foo dëkka for seven good years yaa ngi ut kër amuloo ko nekkul ne kër nekkul si dëkka bi de kër yi bari neen fi waaye nun koo chargé nit ki mu ngi am two two thousand three thousand because façon yi foo jëlee four thousand five thousand and then ba tamit nga gis nit ki yaa ngi dëkka si kër for seven good years mosuloo teg sa bët borom ker bi foog yaakaaru leen ne ñun ak suñu borom kenn war nañ am that bond because ñi tamit ñit leen foog naa disaavuñ lu mel ni ku nekka disaab nga a good life ku nekk disaab nga dëkk fu baax waaye yaa ngi dëkk si kër bi ñii moom su jotee weer bi su deeyee feyuñ seen luwaas borom kër bi dina yoonee génnee leen ko waaye am nañ um, disaster yu mel nii ba tey borom kër bi mënut a ekkati tànkaam dem si kër boobu seet ñu fa nekka nun def is it fair enough pour ñu ndax ñun Gambians yi waru ñoo put lii into consideration yu xale yooyu noonu war a eew dem seen school toog di jàppale sew waajur yi ndax loolu du leen jox yeneen stress lii moo waral ay dem baakwee bu uppa bi lii moo waral saaca bu uppa bi lii moo waral repino yi lii moo waral xale yi di génn di cagantu because ku mel ni man ma eew gis suma yaay am na naxaar am na ñoo xam ne soo leen dee interview du ndee nangu interview bi sax because ñu ngee jooy affaire si yàlla leen métti ba mënuñoo wax lu ñoo wax mooy ñaaka kenn prifaaw pour di ko si lu mel nii kenn ñaanu dinañ demaat seet keneen ak kooku lu mu yi dee ñëw ni dimbali ñu luñ am may ñu jeex na waaye su paasee loolu borom kër si boppam ñun duñ ko dee gis man musuma koo gis fii nii <coughs> madame Jatta fii nga dëkk ñaata at nga fi am ëpp naa opuna 20 years sama njaboot yëpp daanaka fi la li njur ñun yep yaaga na fi torop ñàkk am mo te ñu dekk ci li bu ñu dina ñu dekk comme suñu morom way amu ñu mos ngeen experience lu melni flood bu di bi moom dafa ëppa ta am li dafa ëppa bi dafa ëppa doole ken nelo gudi ba tay ma ngi nekk fu ma ye sama ma ne jógu ndox mi ëpp na doole métti na torop ci yére xoolal naka la mel ñàkk am. fii bu mu staatee naka nga def ak sa ay njaboot. njaboot yi bu ñu ne ci laa wax ne jóguleen ngeen kii jóguleen ngeen taxaw noonu lañ taxaw ba bor set ci laa boot ñeneen yi ma génne lañ ci biti ñu dem si suñu dëkkandoor yi loolu moo tax ci laaw bi bunte ma ne la ma boot ñeneen ñi liggéey na ñi mag yi mun nañu dem seen waaye ñeneen ñi ndaw yi moom ma boot ma génne ban message nga amal nguur gi ak national disaster euh, management ak ñu ñew li ñuy seetaan dama bëgg dimbal ñi dimbalé ñu ñu sono nañu lu lañu bëgg dimbal sono nañu torop do mu na neenaw do mu na def dara dañu sona assalamu ah, alaykum indende ibrahima jallo ibrahima jallo uh, mr jallo ko do hodu do Eh ko do mi hodi duuɓi jelu waɗɗo ngede gal woni ɗo duuɓi di joni duuɓi eh, jeɗɗi o meeɗi ah, comme nolen ko gisee rek tami jigéen jooju di madame jaata mu ne am na sikkir boobu 20 good years 20 years nag du 20 days ah, foog naa ne ku am doomu na a dëkkasi lii for 20 good years ah, soo amee ay xale sax ñooñu tii nga ne moom bu taw bi bu leen beetee dafa jóg du xale yu ndaw yi boot leen génne leen si kër bi mag yi gay nekk di liggéey yaakaar nga ni xale yooyu suñ eewoo dem si seen dëkkandoor yi sax ndax mun a dem school o su mu demee school ndax dina mun a concentrate sa yeneen xarit ñu ngi ñëw seen moto ñoo leen drop ba si bunte school bi keneen mu ngi ñëw su dee moto drobut ko sax waaye sonut yoo coono bi stress bi ba kooku dina mun a concentrate in class non non kooku du mun a concentrate dangaa fekka soona na benna ñaata mi xalaat bi xelam yëpp dina nekk si kër bi ak nu waa waajuram yi def betey rat malaka tuuti sikkol uh, musidɓe ami sikki en fo min e yii ɗum ɗon ko ɗum woni ndiya wami ko maɓuno kon ɓe musidɓe men wontinɓe ton en manjaye ɗo nden nokkure no wono nokkure nde anduɗon fayda hitande ɓe ko wayini heɓay ɓe o yiiwo ɓen sonnaɓe ko maaki ɗon ko woɓɓe maɓɓe wii heɓi ɗon duuɓi jeɗɗi oya o wii heɓi ɗon duuɓi nogay duuɓi nogay no wona balɗe nogay temi tañƴinaki neɗɗo hay goto harayno o ɗumanni no suɓi fi hoɗugol eko wai ni duuɓi nogay fow kon ɗum watta ɗum ɗon ɓe haali e yewtore maɓɓe ɓe inni ko angal ko angal waɗi saabu ɓe heɓali ko ɓe ɗuman noon eɓe mari paykoye wano ndiyan ɗam maɓiri ɓe noon e uneheure jemma tawa koyeɓe bambu koye paykoye bobo hoyeɓe yaltina koye jemma on fo ɓe ñeɗa ndiya yaltina ɗon tañƴini koye paykoye ɗon si yehi kalekkol wawa janngude ɓen hay yey ka l' école wawa o yi ay waɓe joddi maɓɓe hara hewtawa 2000 dala 6 joni noon tawi ko yoɓe teɗa kon hewta 2000 dala 6 hiɗa landede wa 4000 5000 fiya yoɓu joddi suudu konto ittata ɗum maɗa mari paykoy a yaltinay dépense a a yoɓanay ɓen school fees a yoɓay pass si ɓe nawni a ittay konto ittata ɗin ɗon fo ha joni koye paykoy ko yiwɗon no fija e ɗan nderɗan ndiyan tunuɗan ɗon est ce que ɗum ɗon no moƴƴi ka cellal maɓɓe won bolle no wawi wonde toon walan seetiji walla ɓiiji wa nawnaji kadi ɗan ndiyam ɗum ko tunuɗan ɗon ɗan iwra nokkeli ɗin foof goɗɗi haray ko e sokaweji woni iwde goɗɗi hara no iwde e dreneji ɗi anduɗo neeɓi toon ɗum ɗon fof hara paykoy koye no fijude e ɗan ɗon ɓay ndiyam hay goto wataɗan sakkade so ɓeɗo no tori ko wallitoɓe lantori kadi en fof ma yen accu hakkil ko wa ani nokkure si ala paykoye sellukoye paykoye walliti e wakkili koye nden nokkure yarata yeeso par ce que ko paykoye koye wonoyta mawɓe janggo ko ɓen ɗon tambitoto saare nde ñande woni mawɓe ronki ha joni mi watta hay foye mi yiltita e vidéo on daren ko musidɓe men goo yewtani hoore maɓɓe nanon harana ko mi haali kon ton hay kamɓe e hoore maɓɓe koɓe yewti kon ibrahima diallo ibrahima diallo mr diallo ko ɗo hoɗiɗo eyyi ko ɗo mi hoɗi woni jelu waɗɗon e ɗe woni ya, ɗo duuɓi joni ko wa bonnere ndiyan ɗan ɗam meeɗi on bonnirande ni a ɗam bonnanimen ko ari a heewirani wona hannde ko hannde ɓuuri bonnere nden aɗa noon waɗa e kono noon wonirani noon a ah, ko hannde ɗam ɓuuri bonnude hitande fof noon o oh, ndiyan naata kono bonnirta no hikka bonnude E ko noon tun hoɗi ɗo ka ko noon e ɓey guure mon nden fof ko yaari e paykoye e ɗuma eyyi ko min e ɓen wan hoɗi ɗo ɓiɓɓe jeego mi jogui ah, wasi ndiyan ɗan ƴettike maɗan fuɗɗi arde ko honno wa'o ton ɗon andi galle ɗe wonɗon ɗen ɗumannaki te don mari paykoye don ɓattodiri ɗo e joolol est ce que haray on ala mapa mapa hoy panɗe ema en jogui mapa hoy kono andi sa heɓani kawona ko ɗo ko boosi an jonilan ɗo o kanko jeeyi galle ɗen joni mi mi wona ala andi sa ala no uh, yes on nani ben ɗon ko maki uh, yes viewers we will still remind you you are watching your favorite uh, tv so gambian talents tv and on our today's platform we are discussing about the flood how did it affect the youth of the gambia like you see or you heard from them and you see those children, they're supposed to be in school or attending summer classes, but they could not. Why? Because their parents are affected. They are affected. And this type of situation might affect them um, physically, mentally, and even their schooling. This stress can cause them trauma. And this might lead them to step into other acts like stealing, uh, uh, venturing into the back way or attending or trying to be prostitute in order to survive. Uh, as you heard that woman saying that she have been staying in this house for over 20 years 20 years is not 20 days and i don't think every, anybody wish to live in this type of situation for 20 years so i believe the government have a role to play you and i have a role to play as well but i won't do anything i will let our uh, this uh, person speak What's your name? Uh, my name is Ibrahim Dumbuya. Ibrahima? Dumbuya, Dumbuya. Yeah. Uh, Mr. Dumbuya, for how long have you been living in this house? Well, I you know I just came from Sierra Leone uh, from um, uh, over two months now, two months. Two months. Have you ever experienced something like this before? No, no, no, no. Me, since I, I came in, the first one I experienced. because this thing is happening to me happy the government should know what to do because as for me something like this happen the government know how to do I, to help we. because as as you can see now we don't have any side right now to go we don't have any place even to sleep today we don't have food as you see now we don't have nothing we don't have even the thing we eat everything the money everything spoiled so i think the government should look at, about this, this all right thank you mr yeah you're welcome i'm turbi kii nag mu ne two months ago la ñëw Gambia te gis ngeen expérience bu mu am mu ne yàgg naa am expérience yu mel nii ba den mosuta yaakaaru toon ne dina ko am biir Gambia moom jot na si ñaaka ay mobile am ay contacts am lu gaay am yépp imagine nga tëdda bi lead hours like one or two lu mel ni beeta la xam nga ne obviously doo am dara looy def doo am dara looy def moom mu ne dafa eew gisatul dara ah, gis ngeen kër bi nu mel seen bagage yi nu mu yaaxoo seen documents yi as well am na ñoo xam ne graduate nga ay ages ago like ten years five years nga toog rek eew benn guddi loolu yëpp dem na so métti na honestly speaking and I think ne war nañ gëstu lu mel nii war nañ government bi muy yow muy man ah, muy national disaster waaye ba tey naa ñëw si ñooñu tamit ba ñu ngee def xam nga English daf dee wa prevention is better than cure mbax ñooñu ñu ngee def loolu feñoo prevent seen programme o problème boo dem ñoom nga dee njëkk noonu euh, ba tey dinañ bàyyi suñ yeneen euh, speakers o euh, suñ yeneen victims wa maane waaw fii nga dëkk waaw man fii laa dëkka ñaata yees nga fi am fii ñu ngi fi am léegi nine years ñu ngi dugga suñ ten years léegi mos ngeen experience flood bu mel ni waaw mus nañ ko expérience bi moo nekk suñ nine years float because last year moom sant yàlla ba mu bëri floatuñ waaye this year moom dañ float. Ah, bii daf leen beeta ndax. waaw bii moom beeta nañu because ñun taw bi daf doon taw si guddi bi léegi ñun ñu foog ne xëj na dina taw waaye du am serious pour mun a dugga because last year floatuñ waaye ñu gis ne si fajar bi ay boor yi 4 ñu tiit si nelaw ñu ñëw fekk suñ perong bi fees suñ état bi. suñ waañ yi ak suñ wanag bi at suñ cabinet yi yëpp a ngi fees noonu lañ doon jëkkalantu di ekkati suñ bagage yi waaye am na ëppa doole bi daal moo moo ëppa lu yaaxu suñ fridge yi ndox yëpp dugga nañ si suñ lali yëpp si biir gis ngeen fa suñ waañ bi fu mu nekk ni jamono bi ñuy wax a yéen nii sax dëkkandoore ñoo ñu nekk di jox sa luñ lekka because amuñ ben place boo xamante ne dinañ fa mun a toog ñu mun a lekka wala ñuy tooga waaw ah, ban message nga amal national disaster management ak government bi. ah man de maa ngi leen a ñaan di leen jaale luñ bokk daal suñ président bu gaañu ba pare maa ngi ñaan dimbal pour ñu dimbale ñu because amuñ doole. sant yàlla bañ bari suñ anti moo ñu dee dimbale mu ngi Angleterre moom tamit benn loxo la. waye ñu ngeen ñaan dimbal soona nañ nak because every year daf ñu dé dal soona nañ ñu nak suñu xalé su gudé duñ dé nelaw dañoo taxaw suñu xalé ci biti ñu boot suñu doomi tay sax yalla mo ci def ndox bu séda because suma yaay dafa jina fekk ndox bi bari na opana doole suma yaay jina di dem oté dimbal mu daanu si biir ndox bi té mak la te ñun ñoo ben goor fi ñun kessé ñun ñoo be daaw tamit fulootuma biñ defaree biir bi waye ren mom di ma gis alhamdulilahi rabil alamina ren ndox bi jaaxal na ma trop parce que dama jóg wan akuloog la taw bi commencé ma jóg seen ndox bi bridge bi tamit disturb nañu mooy gota bi gota bi daf ñu disturb trop gota bi ñu jël jooyin ko def ko benn saayit daf ñu disturb disturb nañu trop at mu nekka gota bee tax ñu ñu am fulóot te loolu warut kootu ba kootu daj benn gota bi rek moo fi nekka beneen saayit bi la amul koota te loolu warut bon ñun ba five ma jóg gis néeg néeg baa ngi fees ma ee suma xale ma ne leen jóg leen ñu ngee fulóot xale yu jóg waaye time boobu ndox bi duga na dugga boo xam ne beeta nañu because am na yenn bagage yoo xam ne doo ko mën a ekkit ñun jigéen lañ amuñ doole suñ doomee ñu ngi leen amee ndox bi duga xawma naka lay def te ma ngi leen di gërëm di leen ñaanal euh, di ngeen dee jël benn sa safety precaution pour avoid lu mel nii ndax. waaw dañ ko dee def parce que force iya bi ma flotte bi laalee ci laa def fence bu gudda bi si biti mooy fence bële ñu ne ma soo ko fencee nii xëy na ndox bi du dugga waaye ndox bi daal dafa nekk ndox boo xam ne daal kenn mënu koo si woye bi si gannaaw ndox bi jógee boor bii yëpp xam nga fii la dee ñëw daf dee wër néeg bi daf ko dee woor ba néeg bi si boppam daf dee bax si digga loolu moo tax waaye dañ dee def suñ képp taale kaatal parce que soo gisee suma rakk liggéey ko nii sax li mu wax ne xëy na xaaral liggéey ko mun naa am du flóot parce que daa flóotu moo tax waaye ren moom daf ñu beeta ñu ñëpp daf ñu beeta jërëjëf ban message nga amal government bi ak national disaster management disaster de councilor bi sax maa ko kool waaye dafa ñëw si birij bi la em rek mu dem dugut fen te time boobu jeere saane yankuba koli ñoom tombong ñëpp dañu dee wër dañoo wër fu disaster am dañ ko dee wër di toppatoo dañ see teg one month two months ñu ooñu dinañu may maalo may ñu sukur may ñu yére may ñu daala may ñu ay siyo ay paan yëpp la ñu dee mel waaye triage bi moom suñ gis ngeen kër bi nu mel nag am na ñoo xam ne biir Gambia su xiinee dañoo kontaan yaakamti mu taw waaye am na tamit ba tey ñoo xam ne su xiinee ñoom du mbug a gis mu xiin sax ngir xam ne ah, seen location nu mel ak njaboot bu mu am kër taw bi nag yaaxa fii lu baree baree baree bare comme no leen ko gisee rek ñun nag Gambian Talents TV duñ toog suñ office di wax ne kii mu ne kale mu ne dañoo dox dem ba si place bi wol leen lu fa xew ak num ay Aïssatou Diallo Gambian Talents TV waaye ba tey mbokkaay comme noo leen ko gisee rek gis ngeen bu jànna boobu sista boobu wax ak mer bi ñoom ay jigéen rek leen ñoo dëkka nga toog ba late hours lu mel ni dallal maire bi mu ne moom daf doon daw sax mu daanu te xam ngeen ne mag ak daanu moom mooy loolu feebar bu nekk mun na si jaar sax lu nekk daal ko mu ne kool na tamit lu mel ni kansilo bi ah te yaakaar naa ne ñun ñoo teg kansilo yi foofu ñoom it am na wargal su lu mel nii su xeewee si seen area ñu def si dara fekk du ñëw ba si bridge bi rek taxaw fa sa concern national development so these people are affected yow ana ngeen politicians yi yëpp war ngeen génna waxtaana victims su mel nii seet yeneen ah, lifi ñoo leen naa def pour jàppale ñi because ah, lu ñoo spend si yeneen projet ay workshop ay campagne mun ngen ko invexi ñi invensi ñi benn life bo save dafa mel ni save nga uh, hundred lifin so it's good sometimes ngen ngeena ñoo wattana ñu mel ni in situations like this um, musidɓe an ha joni no wonnoɗen noon darirde on nani ɓeɗo ko ɓe wi'i kon mm, yummiraɓe wawɓe ni ma mawɓe wawɓe ni ko kamɓe sonnaɓe tu e galle ɗen ko wayini woni ha tumbere jemma hewtike ma a wi'i ya yaltu enoɗa faabo a yani ɗon andi noon moko ba e yanal wona ko hawri pande bigos hewtoto cellal maɓɓe ngal ha joni noon yummira on no wadde campagne mi anda ko hombo woni waɗande campagne bigos na ɗum joɗɗinilan ɗo kono noon lantañƴini kadi ɗi political parties ji fo no mari golle no mari ɗumande nde ɓe dattotoɓe daroɓe wallito gambiens ɓe ɓen fop ɓe inni ko développement woni haaju maɓɓe so ko wowɓe ni duwaɗa wallitade si ari e affaire développement haranaka haala toon ɓay si élection fewde ni joni noon laamu ngunno ɗo lanɗo ɗon ɗo en foof men ɗen ɗo kala yo waɗu ko wawi wallito wowɓe wani ko ɗum ɗon tun naɓirta e mbokkay ba tey comme noo leen ko gisee rek nii ak lu complain ah, foog naa nag ba tey government bi am nañ a very key role to play towards this ah, ministry of works ah, physical planning national ministry of environment political parties as well buñ toog rek ba suñ interest su jotee ñu ñëw di try pour convince ñii ñii foog naa nit ki soo ko buggee convince at this thing nga koo won ne li wax mu si yow bul toog naa def lii naa def lale ñii rey naa foog naa am uh, Gambia or victims like this amu projet bu gën a rëy pour nga jàppale leen ñu am fu ñëw dëkka because nit ki amul dara looy def su su dee yaa ngi duga ah, si lifin plein di dem everyday soo amul fooy duga du la lifin sax nit ki eh, living bi comme fi nga dëkka moo gën a important first after feeding foog naa living baa gën a important so government bi political parties you and I ñun ñëpp am ne wargaat pour jàppale ñu mel nii government bi may gën a insist ba léegi ñu build something like housing estates ñu dimbale victims yi su dee ñu fii fay ay hundred dalasis ñoom ñu defal leen ninety five su ko defee seen ay youth yi mun a jàng réer ana ñu bugg a sanse ana ñu sanse réer ana ñoo ne Gambie mënuñ sanse ah man Ebel maa bañ ba tëdd si suuf Gambie rek sanse rek la def ba tax ne